Thank you. on est la plupart du temps discriminés au sein des entreprises. Ainsi, cette journée est plus que jamais d'actualité, car le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d'être achevé. Nous, femmes, on a besoin qu'on nous garantisse un métier d'avenir pour nous aider à devenir des femmes libres demain et nous bâtir un monde plus stable. Nous, nous, bu les femmes, nous sommes les femmes, ak gi ngalla hommes. ngeen sàmm ñu te aar ñu ba tax na ku fi baax ñun ñoo la kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen aar ñu te sargal ñu ñun jigéen ku ñu xam xam ni nangoo liggéey ñun jigéen ku ni dañuy bañ ba xëy dee ngalawaay yéen ñi nga xamante ni nii yéeniy def ñaawteefi lépp jigéen ñu leen di ñaan ci bis bi nga xamante ni muy bisu sargal jigéen ñi muy le 8 mars journée mondiale de la femme ngan la yéen góor ñi ngeen xam ni jigéen fi indi yaay jigen mo fi indi jàmbaar jigen mo dolel kep ko xamanteni ni muy goor kon nak sargal len jigen ni delloo len jukkal jigen ñi. nous femmes sœurs maman nous disons non à la maltraitance non à la violence faite aux femmes sur ce nous souhaitons une joyeuse fête à toutes les femmes du monde bonne fête à toutes les femmes du monde Dieu Nous Nous souhaitons bonne fête à Yara.